asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki Sénégal bokk yi ni jàkkaarool bokk yi ni seetaan bu ngeen gisee jataay bi nga xam ni yàgg na am bis bi nga xam ne ci la ni fàttaliku Sëriñ Tuubaa Sëriñ Soy bu Mbàkke muy juróom fan ci weeru koor di démb ci gaaw bi buñ ko màggalee ba noppi naka jëkk jëmm ji nga xam ni moom la ay kilifaam doyloo wóolu ko dénk ko liggéey bi di sëriñ aboo moom sëriñ si ahmadou mbàkkam sëriñ soye bu nu ñaan yàlla yàlla yàgg waaye mu jot ndigal ca kilifaam ga sëriñ abdou samad moom sëriñ soye bu liggéeyu màggal gi mu yor lu jëm ci wàllu communication mel na ne bu màggalee ba xëy nag ci waxtu wi tembe mboole média bi organe de presse yi nekk diggante Mbàkke ak Touba daanu teew ci kanam ko sëriñ aboo mu yëkkati kàddu yi kilifaam yooyu di kàddu yi cant kàddu yi ngërëm tàmbale ci sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké ak mboole ñu seeta saw kaw sëriñ bi di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké sëriñ soye bu mel na ni kon nag tey jataay bi teewaat nañ ci kanamu sëñ Abo nuy ñaan yàlla di wax déwénati yàlla na ko yàgg a teewee ci barke Cheikh Ahmadou Bamba dana nu jébbal kàddu gi oustaz Mbaye Thiam dina ñëw ci ay leeral ci ay tënk yu gàtt bu noppee nu delloo sëñ bi kàddu gi nag mën nu nu càtta ngërëm mi xa bàyyi ko ni ci kilifaam yooyu nu ñëpp nu maa si déggandoo ko kon oustaz Mbaye Thiam nu bàyyi la kàddu gi bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi dawi ridwani wattamkin wa ala xayri xadimihi dil habli almatin wa ala man sanna bi sunnatihim waqtafa atharahum ila yawmi ddin bokki julli di asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh noo ngi tàmbalee ci ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaxa mi fi nekkal sëñ Tuubaa sun borom gën ko fee yàggal te yokku wéram ba mu àggale yéeneem ci liggéeyal Cheikhul Xadim di ko ñaanal njabootu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mi fi nekkal Serigne bu ak mbooleem njabootu Serigne Souhaïbou gépp di tàmbalee nuyoo yi ak ziyaare yi ci sunu kilifa gii ci sunu kanam di Serigne Abo Mbacké moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Souhaïbou di ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko te àggale yéeneem ci barkeb Cheikhul Khadim ni ko sëñ góor a waxe léegi rek xam ngeen ne démb la woon juróomi fan ci weeru koor ñu doon fàttaliku sunu yaakaar jàmbaari lislaam ja doomi Cheikhul Khadim ja ko doon liggéeyal ci alxuraan di Serigne bu Mbacké mi nga xam ne léppam daa mel ne sunu borom da ko programme ci diggante weeru koor ak alxuraan ndax ci la gana jamono ci la ñibbi itam aljanna lim doon liggéeyal Sëriñ Tuubaa di alxuraan ci weeru koor la wàcc kon léppam sunu borom da ko programme maa ngi doon wax ne weeru koor bi mu gane jamono nga xam ne altene la teru juróomi fan yi di ajjuma weeru koor bi mu ñibbi aljanna altine la teru juróomi fan yi di ajjuma ndax ca laylatul xadar ga di fukki guddeeg juróom-ñeent ca la ñibbi àjjana te laylatul xadar bu doonee fukki guddeeg juróom-ñeent weeru koro altene la teru juróomi fan yi di ajjuma kon moom léppam suñ boroom da ko da ko waajal programme ko ci biir weeru ko rek alxuraan sëriñ Soy bu moomu nag bisam di bis bi gën a màgg ci noonu ndax mooy bis bi nga xam ne xéewal gi gën a màgg suñ suñ borom teraleel ñu ko nga xam ne moo ñu moo ñu moo dox suñ digg ak sëñ Tuubaa Euh, mooy mooy bis boobu bis boobu sëriñ Souhaïbou bu gane jamono loolu moo tax sëriñ bi di def saa bu bis bu dellusee mu woote ko ñu di ko ñaanal ak di ko ci fàttaliku di ci jàng alxuraan di ci jàng xasiida di ci defi bernde waaye di ci waxtaan itam ak dundam ngir fàttaliku kat moo doon sëriñ Souhaïbou bu Mbàkke kon xam naa kàddu yi bëgg a jib tey bàyyi ko ci sëriñ Abo Mbàkke moom sëriñ si Ahmadou Mbàkke Souhaïbou bu mi nga xam ne liggéey liggéeyu màggal gi yëpp ci loxoom la ko kilifa yi teg bi nga xamee ne sëriñ bi teg na liggéeyu màggal gi ci loxob sëriñ Abdou Samad sëriñ Abdou Samad tegaat ko ci loxo mu ànd ko ak mboolem ko àndal kàddu yi cant yi yu bëgg a jóg jëm ci mbokki taalib yi euh, moom lañ moom la ñuy taatan ci moom incha allahu taala euh, waaye daal ñu xam ne sëriñ bi moom mi ngi jot li ñëpp kàddu yi cant ak kàddu yi ngërëm xam naa dina ci gën a ñëw sax mu gën a yaatu kon dañuy dañuy bañ a guddal daal di koy jébbal kàddu gi incha allahu taala mu jot kàddu yi cant yi nga xam ne war na koo jëmale ci bokki taalibe yi kon ñu ñu teewlu sëriñ Abo Mbàkke bismillahi min seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi waxda wassalaamu ala man laa nabiya baxda in uridu ila al islah mastaxtu wama tawfiqi ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi yëkkati suñu kàddu ci turu ak ci ndigalu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké mi nga xam ne mooy jëwriñu sëriñ Souhaïbou radiyallahu taala anhu ni mu ko baaxoo defe bis bi nga xam ne mooy bisu sëriñ Souhaïbou nga xam ne ci la feeñoon jamono tam jotoon ndigal ci waajur mu tedd ba Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu ci woote ko ànd ko ak mbokk yi ànd ko ak mbokk taalibe yi ànd ko ak mbokk ànd ko ak mbokk julli yépp bu ma jotee ndigal Cheikh Saliou ba léegi ndigal loolee mus koo noppee jëmmal saa yu bu su agsee dana ko woote ànd kook ay rakam ànd kook ay mbokkam ànd ko ay taalibeem def ko na ko na ko sëriñ sant woon ni ni ko baaxee def nag ginnaaw boo xam ne woote nañ bés bi ñëpp wusi ko ñu dundal ko ca anam nga ñu ko war dundale dana dana dana dana dana dana baax ne bu jàllee euh, mu yëkkati kàddu yu cant yoo xam ne da ko ci mbokk yi nga yëpp wuy woon nañ ko ak ñu ànd na moom ci bis bi bu ko defee nag kàddu yooyu nag da koy jaar la ci jëri jëriñam li nga xam ne mooy jëriñu kër gi di Cheikh Abdoulaye Cheikh Abdoulaye Mbacke Drakam moom Cheikh Souhaïbou bu ko defee mooy it mu jaar la ko ci sëriñ Abdou Samad mi nga xam ne mooy seen kàddu yar kàddu sëriñ Cheikh kàddu kër sëriñ Cheikh bi gépp seen kàddu yooyu yëpp nag ak seen ndigal yëpp moo jaar ci ñun ñi nga xam ne ñun lañ dénkoon liggéeyu màggal gi ci taxawu ko ak saytu ko ba nañ bëggee ñu doxale ko noonu ñu doxale ko noonu loolu mooy kàddu yi nga xam ne war nañ ko yëkkati kon nag day mel ni ñu ñu ñu doon saytu liggéey war koo seere daan laaj kàddu yooyu ñu béral ko kàddu yëpp nag kàddu yu cant rek la yoo xam ne mi ngi bàyyi ko ci sëriñ bi jëm jëm ci mbokk yi mbokk yëpp waaye bala ñoo soro ci kàddu yi cant yi dañuy nuyu ak a siyaara Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy kilifa ak yoon mur yëpp mhm. di ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba mbooleem naal ak sumb yi mu am liggéeyal Seex lépp mu àggale ko ko moom sëriñ baa ngi koy siyaara di ko nuyu bu baax a baax xam ngeen ne ni mu ba ni mu ko baaxoo rek màggal gi bala cee eh, tàmbali dara wala mu ciy def dara dana dana dana dem ci moom wala mu yónnee ci moom euh, sàkku ci moom ndigal noonu la ko defaar ren màggal jub see yónnee na fa euh, yeesluwaat ndigal li euh, sëñ bi joxe ci ndigal soññee ci bu baax a baax waaye jàpp ci baax a baax taxaw taxaw ci taxawaay bu mat sëkk ci biir ak ci biti kon nag kàddu jant yëpp ak kàddu yu ngërëm yëpp moom lañ ci jiital taxawaay taxawaay taxaw taxaw na ci taxawaayu. sëñ Touba waaye taxaw na ci taxawaay Serigne bu ndax moom ku ne xam ne mm, ne ku a xam ne diggante ma Serigne Souhaïbou euh, moom moom na Serigne Souhaïbou daan daan wax daan wax daan wax sax mooy mooy ab taawam waaw kon nag euh, loolee euh, doxe na ko waxee na ko ci kër gi démb njëkk tey kon nag tey dafa rawati kon nag taxawaay yi nga xam ne taxaw na ko ci taxaw ko ci seen wet ñoom njabootu Serigne Souhaïbou Serigne Cheikh mi ko mi ngi ko sant di ko gërëm ci turu boppam ak turu njabootu Serigne Souhaïbou gépp waaye di sant yi mboolem ñiy bokk Sëriñ Tuubaa yaakaar naa képp koo xam ne ñëw nga ci mag màggal gis nga ne kenn desul mm. waaw njabootu Sëriñ Tuubaa gu góor gi njabootu suñ Tuubaa gu jigéen gi ñëpp kenn ku ñu ne bàyyi nga sa yitte ñëw bis fekk sëriñ bi eh, boole say sa sa say say taraanga yëpp ngir bokk moom bi ak wan ko ko bis bi eh, ñoo ñoo ci yem kon ñoom ñëpp suñ bàyyi leen sant leen gërëm gis na taxawaay yëpp eh, ñi ñëw te agsi moom ak ñi agsiwul ci moom ñëpp rek sant na leen gërëm na leen xam na ne bis bi ñoo ko bokk xam nañ ko te dox ko kon ñu ñaan suñu boom fay fayal ñu leen daje Seex Xaadim waaye nii mboolem mbokk yi ñu ñu bokkal ci wàllu Mbàkke ci wàllu Njaxate ci wàllu Mbusoobe ba ci seex yi nga xam ne ñooy magi mag ñi ànd ñooy sëti mag ñi ànd sëriñ bi ñoom ñëpp rek ku ci ne taxaw ci taxawaay bu mat sëkk taxawaay boo xam ne wane na ne eh, kóllëre ak taalibe gi doxoon seen diggante ak suñu son bu sàmm nañ ko matal nañ ko seen diggante ak suñu son bu waaye nag nañ ko matal nañ ko seen diggante ak njaboot suñu son ñëpp ñu leen ñu leen sant ñu leen gërëm bu baax a baax euh, sant kilifa diin yëpp kilifa kilifa yi diin yu bëree bari euh, seen ndaw teew na fi jaruñu lim waaye kër yi kër diin yu bëree bari ay délégation jóge nañ fa ñëw ci bi ànd ànd ko ak sëriñ bi hmm, ndax ku ku xam ne suñu son bu ku amoon ay xalaat la ci kilifa diine yëpp. Mm-hmm. Mm, xalaaxaat yaatu sax mm-hmm. ndax fonk guñ guñ xamoon ne fonk na ku diine ak bëggum bëggul xam-xam daa tax borom xam-xam yëpp ak kilifa diine yëpp donte bokkuñ ci yoon yi mm, joxoon ko wàccuwaay bu yaatu ci seen xol. waaw loolu nag feeñee ci bis bi. Mm-hmm. feeñee ci lépp lu ñu ko wootee rek danañ gis ñoom danañ ko danañ ko ànd sëriñ bi. kon euh, ñoom ñëpp sëriñ bi sëriñ bi sant na leen gërëm na leen. ci turu njaboot njaboot sa njabootu sëriñ Soxna gépp euh, waaye di sant di sant di sant di sant mboolem nag mbokk taali mbokk taali bi mbokk taali bi mbir yëpp nag yëpp bàyyi kenn euh, ñëpp ñëpp euh, daanaka bi weeru bi weeru saxbaan teeroo rek laata màggal gi asi waxtu wu ne délégation yi dañuy dañuy dañuy tegaloo dañuy tegaloo bis bu sene daayir yi ñëpp mboolem loo xam ne war war na fi ci ay taraanga ak ci ak ak ak taxawaay lépp ñoo ñoo ko def. Hmm. muy muy taalibe mbir yëpp kon maa ngi leen sant leen bu baax a euh, xam naa di di ci bëri cant nag euh, daara alxuraan yi ak euh, daanaka rek bu ñuy wax bu ñuy wax màggal suñu soxla moom ñoo ñoo ñoo ci ëpp solo ndax suñu soxla xam ne ne alxuraan moo doon ab liggéeyam. Hmm. Hmm, ci la dundam ci la ko jeexal ni ko xam rek. ko moom moom moom sëriñ sëriñ bi moo ko fàggaloon loolu hmm. ci ci ci biir ab liggéeyam mu liggéey mu liggéey la ko alxuraan hmm, ginnaaw bi ko sunu boom eh, fàggule nag mu bokk alxuraan lépp <laughs> hmm. eh, bokk alxuraan weer mu wàcc eh, bis bi mu dellu it dañ ko waxee léegi di bis bis bi alxuraan wàcc nga xam ne day mel ne loolu sunu boom mu wax ci alxuraan sànq ramadan la si unsila fi alxuraan hudan li naas bayyinaatin minal hudaa jooyu damay wax ne boo boo boo dindi woon sax ramadaan bi teg ko suñu son bi day mel ne wax ñu du yàqu ndax wax ñoo ñoo ñoo bokk mission hmm. kon nag jox cëral ko waaye suñu ci war na ko ci nag liggéey loo ko ci mu liggéey ci liggéey bu am solo waaye loolu nag dafa feeñ ndax ci ci ci mbokk yi ndax bis saa yu bis suñu soñ bi ñëwee rek hmm. daara yi ak daara kaamil duñu xaar sax ñu soñu leen hmm. danañ ci danañ ci woon a yéene yéene ñu mat sëkk day jéggi dayoo. xam hmm. euh, naa lim yi lim yi fi njàngoon moom da jéegul. Hmm. waaye maa ngi koy wax rek daaw daaw maa ngi jàllee li ñu jotoon ci ay lim ëpp na fukki junni ak nangam. ci ay kaamil hmm. loolu nag loolu liggéey bi liggéey bi yaatu la. am na ci daara daara yoo xam ne. bu bis màggal yàlla rek ñu commencé waat duñ duñ ko jëlal. te te sax duñ ca duñ ca duñ ca duñ liggéey bi suñu soxna bi ci alxuraan la. kon nag daara alxuraan ak daara kaamil ci njiital sëñ mu xaban Mbàkke moom Cheikh Amadou Fadal mi nga xam ne moom la sëñ bi di saytuloo lu jëm ci daara yi euh, sëñ baa sant di ko jaare ci moom mm-hmm. waaye di ko jaar ci sëñ Basiiru Mbàkke moom sëñ Abib mi nga xam ne moo jiite rabate bi moom it mm-hmm. euh, taxawaay am solo ñu ngi koy taxaw ci bi mm-hmm. leen sant di leen gërëm baax baax ni ko noonu ni ko ni ko noonu kuréel kuréelu xaside yi moom ñun ñëpp dañ ko waxoon ci woote ba rek euh, ca soññee ba sëñ bi jëloon lépp tegoon ci loxol rakkam di jëwriñu sëñ Amsatu Mbàkke moom moom Cheikh Souhaïbou nga xam ne moom la sëñ bi jiital ci liggéey boobu ñoom it taxaw taxaw nañu taxawaay bu am solo euh, lim yu bëree bëri ci ay ci alimi xasida daje na fi yoo xam ne euh, kuréelu xasida yu fàccante ko ci ci Touba ak ak ci ak ci ak furu Sénégal sax mm. euh, jàng nañ ko lépp rek ngir ngir ngir addiyaal bu sëriñ bi mm. waaw loolu nag lu lu lu rëy la ndax loolu rek mooy bés bi mm. ndax bés bi moom ñaan la moo ci ëpp solo te ñaan moom dafa am solo ndax isud da isud da yan fa ma yital fil xubur hmm. waaye yan fa ma yital waaye yujubul ajoon suñu ñaan dana jëriñ ki nekk ci bàmmeel waaye yi ma ko yi ma ko defee dana hmm. ah, la jëriñ leneen la ci mooy hmm. daanaka loolu moo moo moo ci moo ci am solo waaw ah, kon nag eh, daara yi ak ak kuréel xasida yi seen seen taxawaay bi su sëriñ bi rafet na ko rafet na ko bu baax a baax bu ko defee di sant di sant di sant it mbokk taalibe murid yëpp ni ma ko waxoon léegi rek hmm. rawatina rawatina ñi dëkk Touba xam ngeen ne ci wàccaay màggal gi am na yëngu yu bari ñu doon ñu doon def ci waajal waajal waajal ko màggal gi moo xam ay mbale yi ñu fi doon def hmm. yooyu yëpp rek daayira murid yi nekk yi nekk ci dëkk bi ànd ànd ànd nañ ci ak kër gi hmm. ci taxaw taxawaay yu am solo ba wàccaay màggal gi li ci waroon rek ci ay yëngu ci ay taxawaay ñu ànd ko kon taalibe bi mbir yëpp suñu bala leen sant leen baax baax leen gërëm baax baax xanaa di ci beral di ci beral cant rek taalibe taalibe kër gi nga xam ne ñoom bis bi ñoom ku ñëw ku ñëw ku ci ñëw ko ne ñoom la ñoom la ñoom la jàppale hmm. ndax ñoo waa kër yi waaye loolu waroon nañ ko keroog ba suñu joxee ndigal ba tey ji noppalewuñ taalibe kër yëpp ak fi mën a bokk ci kër gi rek taxaw nañ tem ci ci ci ci ci waajal màggal yi ci waajal gan ñi màggal accès ñu taxaw ko ba gan gi fi ñëw ñu toppatoo la teral la tegal ci condition yu baax te loolu nag li ci def sëriñ bi lañ ko defal waaye seen seen bopp lañ ko defal ndax ñooy ñooy kenn boo ci fédération yi nekk réew mi ak biir réew mi ak ak yi nekk bitim bitim réew yëpp sëñ sëñ bi sant na leen gërëm na leen seen jëfit agsi na ak seen ak seen teraanga wax naa ko léegi bis bi lépp lu ci war rek ñoo ko def hmm. lépp lépp ñoo la war kon nag sëñ bi yëg na seen taxawaay baax a baax mi leen ñaan ak fi ñu nekk euh, suñu borom sàmm leen te dëgëral leen te barkeel leen te yokk te yokk seen i xewlu bu baax a baax di sant yi nag mbooleem mm, mboolem mboolem mboolem comité comité bi comité d'organisation bi nga xam nag ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ñoom ñoo doon saytu màggal gi nga xam ne man mën naa wax ne man ñetti weer yi yoo xam ne noppaluwuñ daanaka ci jumaa de sa wala jumaa de saniye ba rajab ba saxbaan ñetti weer yooyu yëpp saxaloon nañ mm, semaine bu ne ajuma ju ne ñu daje fii ci kër gi mm. lépp ngir waajal bés bi ngir ak taxawu ko mm. euh, xëy nañ euh, loolu ñun taali taali taali kër gi yëpp la waroon waaye ñoo ko féetewoo wuute ñëpp euh, kon faaw ñu bari leen cant bari leen gërëm xam ne bis bi lu ci jal lu ci jag ñooma lu ci lu ci rafet ñooma kon nag kon nag ñoom ñëpp rek ku ci ne xam nga taxawaay yi ngi ci doon taxawee Eh, sant nañ leen gërëm nañ leen noppal noppal nañ ci noppal noppal nañ noppal nañ sëriñ bi ndax taxawaay yooyu luñ ñu ci def doon ñu ñoo koy def waaw kon nag ñu leen sant di leen gërëm di leen ñaanal luñ lu ñu jëf rek sëñ bi nangu ko te gërëm ko di dajee sëñ Tuubaa di sant nag mboolem autorité administrative yi nga xam ne ñoo nekk ci région région de Diourbel waaw commencé ko ci euh, monsieur le sous bu Ndaam ak mm, le préfet département de ak le gouverneur de la région xam ngeen ne màggal gi accès ni ñu ko baaxoo defee eh, bi ñu leen ko yëgalee eh, gouverneur convoqué woon na benn CRD ci Diourbel eh, seexoon ko ak chef de service yi nga xam ne ñoo aju ci région bi yëpp ngir waajal bés bi ak seet ni ñu koy mën a taxaw ak ni ñu koy mën a jox yitte loolu wax dëgg yàlla yitte wala soxla yi nga xam ne yëpp comité bi amoon nañ ko ci lu ci bis bi te mooy taxawaay yoo xam ne état état ñoo ko war a taxawee ndax ndax fu mbooloo di daje rek am na taxawaay yoo xam ne loolu wàllu état la wàllu wàllu sécurité wàllu santé mm. ak yu mel noonu nga xam ne ñoom ñoo ñoo ko war a garanti loolu it mm, lañ tënkoon ci CRD ba te waxtaane ko mm, xañ na mun mën a mun mën def nañ lépp waaye la def nañ ci lu bari war nañ war nañ seen yéene war nañ ci seen taxawaay kon nag euh, suñ bàyyi leen sant di leen gërëm ñaan sant googu it ñu jàlle ko ba ci seen i kilifa ndax xam nañ ne ci def rek seen kilifa la jógee daal ci ministère de l'intérieur ba ci njiital réew mi président kon sëñ baa leen sant leen di gërëm xañ ne lu ci lu ci maa ngi xëy na xat-xat xat-xat jamono la waaye xawaa xam nañ seen yéen rawate rawatina chef de service seen ñi nga xam ne ñoo doon ñoo doon jonjoo liggéey bi seen seen taxawaay sëñ bi sëñ bi euh, sant na ko na ko gërëm na ko waaye di ci bari cam nag euh, monsieur le maire Abdou Lahad moom nga xam ne moom la moom la sëñ bi dëkk bi hmm. euh, nga xam ne moom day mel ne am na taxawaay ci màggal yëpp waaye màggal suñu soxla daf ci raw ndax wax dal waxtu bi da ciy day wane ne ci kër la bokk euh, benn CRD du ko manqué euh, tey dana ci jëf loo xam ne sax da koy jëf ci euh, xam ne koy jëf en tant du ko jëf en tant que en tant maire maire waaw lépp loo xam ne sax war naa sooxa ci yeneen service yi nga xam ne dañoo war a taxaw màggal gi donte du seen wàll moom dana jël engagement fexe ba loolu du sooxe ci ci domaine yu bëree bëri loolu nag euh, xëy na ni mu demee ci kër gi la ci kër gi la waaye nag ak it ak it dëkk bi nga xam ne euh, dénk nañ ko ko mm-hmm. waaye li ci mën li ci mën a xaw daal wax dëgg yàlla taxawaayam rafet nañ ko mm-hmm. euh, ñoo ngi ko ñaanal suñu boom sàmm ko dëgëral ko te liggéey bi nga xam ne mm-hmm. kilifaam gu baax gi di suñu kilifa sax si Mbàkke moom Cheikh daal yàlla ko yàlla yàggal te ko moo ko teg ci loo xam mu mu àggale ko fa fa ko fa ko sëriñ bi bëggee te muy njëriñu dëkk bépp waaye di sant mboolem ñi mu seqal euh, ñi mu seqal commune bi ay te dañ ko dañ ko doon jàpp ci dañ ko jàppale ci liggéey bi mm-hmm. euh, nga xam ñu ngi gi nemmeeku liggéey fi mu toll mm-hmm. lu ci nar a sax am na ci loo xam ne moom dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko taxawee te moom te moom du ko yëg mm-hmm. waaye daal seen taxawaay daal euh, sëriñ bi rafet na ko baax baax ñu ñaan suñu boom def lépp lépp lu ci jëf rek sëriñ bi sëriñ bi nangu ko mm. boo ko defee xam naa di jeexal rek ci sant nag mboolem presse bi nga xam ne ñoom ñoom ñoo ñoo fi teew tey te seen taxawaay ci màggal de taxawaay bu am solo ndax màggal gi moom bu màggal wala màggal sax bu lu ci solo ginnaaw ñaan mooy fàttaliku ak tasaare njàngaleem ki tax ñuy woote ndax ku ñu màggal ku ne dañoo yaakaar roy ci yow mm-hmm. dañoo yaakaar a euh, jël ay référence ci yow mm-hmm. Euh, loolu nag bu bu bu mënut a mënut a sotti te presse bi presse bi jàppuñu ci. Mm. xam ngeen ne bañ wootee bés bi. Mm. ci avant première bi ba tey jii mboolem presse bi moo xam presse bi la moo xam bi la mm. ñëpp jàpp nañ ci jàpp jàpp jàpp nañ ko rafet nag presse bi nga xam ne moom. seen taxawaay moom wax dëgg yàlla euh, taxawaay ba taxawaay bu kawe la. mboolem émission yi ñu fi waroon def. mu ci reportage yi ñu doon def avant ngir waajale ko màggal gi. Euh, luñ ci soxla rek def nañ ko def nañ ko bëggee mhm. ba yaakaar naa màggal gi mhm. mboolem ñu ko doon bàyyi xel li ko siiwal xam nañ ne mhm. am na ak ràññeeku bu baax a baax te loolu lépp nag seen taxawaay la mm, kon nag kon bàyyi ñu kenn ñëpp ñu leen sant ñu leen di gërëm mm, ci jàppale gi ñu jàppale ci liggéey bi mm, ba ba mu àgg fi mu àgg di ñaan suñu boom dëgëral leen te barkeel seen kër ba seen liggéey it gën a yaatu tam nekk njëriñul dëkk bi nekk njariñu réew mi yëpp mhm. euh, ñu ngi daal ñu ngi daal di santaat mbokk taalibe bi yëpp santaat mbokk jul yëpp di santaat euh, sunu sunu kilifa yi euh, ci taw fi taw feex ju ñuy defal ba dénkuñu liggéey bi ñu ànd ko mbokk taalibe yi ndax loolu mooy mooy sunu njëriñ sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moom mm, kenn mun cee jariñu te liggéey liggéey liggéey lawuñu la si mm. loolu moo loolu moo kon nag ku la mm. jox taw feex nga mën ko mën koo liggéeyal dese loolu dara kon ñu ngi sant ñu sant baax suñu kilifa yi euh, ñaan suñu moo yàggal leen fi commencé ko ci suñu euh, kilifa gi nga xam ne moo nekk ci bopp kër gi suñu Cheikh Amadou Mbacke waaye mboolem ay rakam góor ñi ak jigéen ñi ñëpp war nañ seen tax taxawaay bu ma sëkk ci bis xam ngeen ne euh, màggal gi ren am na bis boo xam ne dañ koo jagalee soxna yi mu ko fàttee wax mu njabootu suñu soxna bu jigéen ndax jigéen ñu bari dañuy dañuy fàtte ci ci yu mel nii mm-hmm. te ñu am ci taxawaay te ñu am ci taxawaay am solo nag mm-hmm. waaw moo tax bis bu nga xam ne mooy ibbi màggal gi hmm. ñu tànn ko di ko di ko di ko jagleel njabootu suñu soxna bu jigéen gi hmm. ren nag ñu jagleeloon ko suñu bajeen soxna maam Xari Mbàkke hmm. tam sonn ci lool am ci taxawaay bu ma sëkk ngir xër ak xëram ci waajuramu tedd ba waaye ak ak ak ak fonke ak fonkeel te loolu war na war na ko ci bis ba yaakaar naa ñi fa teewoon ñëpp xam nañ bis ba bis ba kaw na jot kon moom soxna soxna maam Xari ñu ngi ko ñaanal di ñaanal magam yëpp rakkam yëpp góor ñi ak jigéen ñi ñu yàgg suñu kanam ñu yàgg seen ginnaaw yàgg ànd liggéeyal seen seen waaju tëdd mm-hmm. yàgg ànd ak liggéey Seex Xadim mm-hmm. te lépp lu ñu jëf nag mm-hmm. Seexul Xadim nangu ko defal ñu ci lu koy njort jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh